Assane tudd na doom bi Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacke moom la ñu tudde xale bi yal na ko yàlla dundal la nekkoon ci ci turandoom yal na ko yàlla def ci moom yal na nekk saalixu saalixu liy tekki saalixu ba Serigne Touba gisoon bu tudde ko doomam ah, moom mi tamit mu jëlaat tur boobu tudde ko doomam yal na nekk saalixu kooku mooy Muhammad Rasulillahi ba mu gënee yàgg na lool waaye ban ko gëmee yàgg na lool cafeel gi daal di nu dëj di xeeñ lu neex du saf lu neex ñu jiin ko Seydina Muhammad ak bàkkaram yaa Rasulillahi yaa rasulallah moo tax yàlla bindi asamaan Seydina Mohamed moo tax yàlla bindi suuf Seydina Mohamed moo tax yàlla bind nit ñi ak ginne yi ak malaaka yi kooku ñu ko tuddee saaliyu moomu mooy li qaadatil wujuuhi wal masaalihu bi tey wal gis wa inni saalihu borom ahlu fasaati turan isana tubaɓe teyaɗo kaabon asada wal boseyi kaɗɗaro ho wokkuluhum siru ho norun wa asran fa mablakal ilmu fi an ho basarun wa an hodoru sinima lil mustafa